ne ñu ngi leen di bàyyi xel au niveau nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV voilà li ñu leen mën a wax fii ci diwaanu ci Ziguinchor ci diwaanu Neemal Kajoor ci juste fi nga xam ne fa la Ousmane Sonko dëkkee euh, ce matin jot nañu gis li nga xam daanaka moo di euh, calme mais jàppal ni euh, barricade bi nga xam ne dagg nañ ko def fële yi nga xam daanaka moo di ci diwaanu cité kër góor gi ñi di force de l'ordre yi mënuñ ko def fi nga xam daanaka moo di ci kër Ousmane Sonko Neemal Kajoor booy xool ndaw ñi yi dañu barricade angle ak angle koñ ak koñ kenn mënu la jàll fenn boo xool circulation bi nga xam ne war na mën a am parce que nee na ci diwaanu Ziguinchor euh, mënu la am donc booy dañu def seen ay barrage ñu taal li nga xam ne daanaka moo di seen ay pono ne kenn du fa jàll même sax ñun ñi nga xam ne les journalistes yi nga xam ne war a mën def suñu liggéey bu ñu il faut que ñu identifier ñu ba pare euh, pour ñu mën a jàll loolu la leen a wax ne a xew tant que procès Adji Sarr ak Ousmane Sonko jeexagul te dafa am ñenn ci arrestation yi nga xam ne mën naa ne am na te booy ñu ngi leen jàpp benn police bi mi ngi nekk euh, police centrale te seen ay ndaw ñu ngi fa te booy nee nañ il faut que ñu libérer ñi nga xam ne jàpp nañ leen ba pare euh, ñuy doog a arrêté li ni mel wala le président Ousmane Sonko jóge euh, diwaanu Ziguinchor su boo xam Ousmane Sonko en ce moment mi ngi ci biir domicile am demul fenn donc mën naa ne Xaadim lii nii benn calme xam ne bu Sénégalais ñu ngi koy ñaan am ci diwaanu Ziguinchor mu am nekkul loo xam ne daanaka dina yomb. leneen leneen it mooy ab xibaar la dañu ko teg loxo naam wala déet mën nga ñu confirmer loolu. dañu ko teg kenn. loxo Ousmane Sonko. non Ousmane Sonko kenn ko mu ngi ci biir domicile mi ngi ci jàmm bu baax a baax a baax ay garde corps am ñi ko xam ne ñoo gën a jege ñu ngi toog ci buntu këram ndaw ñaa ngi nekk foofu noonu fa lañu fanaan daal vraiment mais kenn laalul Ousmane Sonko Ousmane Sonko mu ci biir këram mu ci jàmm bu baax a baax. ok démb ginnaaw génn bu mu génn naka la ko askanu Ziguinchor euh, jàppee ak kàddu yi ñu doon faral di yëkkati lëmu. waaw mais euh, c'est c'est c'est normal xam nga tey jii nee naa la ku ku ñëpp tàccu di nga fecc. Mhm. Ousmane Sonko nit ñi euh, daanaka dañ ko bëgg. Mhm. te booy xool lii di joolaay di dégager muy ndaw jigéen ak mag vraiment ni ko gars yi teeroo ak joie bi ñu àndal lii lii dañ dañ leen koy nangul. mais hmm. jàpp naa ne li xew Dakar xam nga maa ngi koy wax samay biir commentaire nee naa leen lii di Dakar du Ziguinchor Ziguinchor dañu bëgg ki nga xam daanaka mooy seen doo Ousmane Sonko donc a dégager yoo xam ne ñenn ci ñi nga xam ne am nañu Ousmane Sonko ñu ngi koy wax moo di que ni affaire de mystique et am yoo xam ne ñu ngi toog en face pour Ousmane Sonko di tëgg li nga xam daanaka moo di seen aada ak seen cosaan mais Ousmane Sonko kenn du ko laal donc tey jii nii Ousmane Sonko bu ñu ko naree jëlee ci doon ci question naa ne euh, dina nar a métti lool lool lool si xaadim ñax laa yaa ngi koy wax tout à l'heure mooy soxna yooyu nga xam ne ñu ngi ci wetu kër Ousmane Sonko ba léegi ñu fa ak ñu amoon blessure yan condition la nekk xaadim euh, soxna yi nee naa la depuis euh, trois jours mën nañu wax ne soxna yi fa la fanaan mën naa ne fa la añee fa la defee lépp la def moom xam naa ne ñooñu moom duñ fa jógee mais blessure am na ci bëri démb dem nañ ci hôpital de la Paix nekk na ci plus de trente blessés yoo xam ne ay ndaw la ak ñi nga xam daanaka ay femmes yoo xam ne jot nañu blessé mais ñoom euh, a baax a baax mais naa ne lii il faut que ñu mën ko euh, a ñaaw suñu que tey njottees nga peut-être ay probable euh, jàppante bi nga génnee xoolaat dëkk beeg yi ñu mel ak xale yi la ñuy wax il faut que ñi nga xam daanaka jot nañ leen a jàpp ak ñu may Ousmane Sonko jàmm loolu kese la mais euh, euh, loo xam ne daanaka dina ko mën a saafaraal il faut que procès bi jàll parce que booy yi tant que Ousmane bi ñu ci biir kër yi booy yi duñu ñibbi fa la ñuy fanaan fa la ñuy yendu donc lii rek il faut que procès bi mën a jàll pour booy mën a euh, nekka si jàmm booy xool Ziguinchor tey jii nii kenn nekkul si jàmm fépp foo mën a dem ci diwaanu Ziguinchor ba ci Neemal Kajoor kenn mënta jàll circulation yi day taxaw mooy partout marché bi fépp foo xam ne daal dem ak dikk bi dafa doon dem daanaka moo di as problème donc xaadim Ziguinchor daal en ce moment bii ñu ngi ci li nga xam daanaka moo ko as ak a rëy suñu xaadim. am ngeen ay xibaar fan la fan la nekkoon wala jot leen gëstu ci yooyu. ah mën naa ne euh, loolu euh, dafa doon information yoo xam ne dafa xaw a sensible de man bu ma la ne Ousmane Sonko fii la nekkoon damay fenn mais gis nañ ne démb ba di génn ci biir këram la génnee te kii nga xam ne daanaka moo di. gën ko jege ak ki xam daanaka moo di ab protocole man ba ma ko demandé li ne mel dafa ne Ousmane Sonko demul fenn mi ngi ci biir këram te ba muy génn ci buntu këram la génnee donc Ousmane Sonko euh, mën nañ jàpp ne nekkutoon fenn fu dul ci biir këram. ok jëm euh, bi jëg nañ ci information que ni euh, li nga xam ne moo di ab bërëb bu nekk foofu mu di kiiw naka la tudd ab salle française xale yi dañu ko dañu ko taal loolu it la mën a confirmer la. non xam nga ay bi am ci boppi borom ma xale moom vraiment buñ commencé di di di wane li nga xam daanaka mooy seen nakkar euh, euh, du fi yam gis naa ne am na am na oto yoo xam ne sax paal nañ oto boo xam ne daanaka moo nekk une santé nekkee côté bi euh, gis naa ne oto ko te lool bi ñu ko waxee tamit mën naa ne da doon dëgg rek parce que ay bi am ci boppi borom gis nga ni ko defee ci diwaanu ci coor Dakar gëm naa ne noonu lay amaatee di amaat te affaire yi moom bu xëttee ba dégénéré ndaw ñi kenn dootu leen def la nga xam daanaka moo di euh, mesuré pour ñu mën a régler benn place bañ a yàqute yàqute mais jàpp nañ ne li muy amee dak ameewul fii noonu ci doon Ziguinchor Ziguinchor ndaw ñi dañuy jàmmarloo noonu rek mais bu yàqute yàqute xam fee bëri loolu loolu ok ci wàllum Cap Skirring foofee est-ce que am na déploiement ci wàllum takk der ak ci wàllum hélicoptère euh, parce que ñu ngi jot ci xibaar ne ñooñu ñu ngi amul euh, ñi nga xam ne moo di général Moussa Fall ñu ngi foofee pour teg loxo Ousmane Sonko est-ce que quand foofu mën nañu wax que ni y a un dispositif impressionnant boo xam ne mooy ci boobu lay diwaan. non yooyu amaguñu information yooyu noonu mais li jàpp ne daal ñii euh, police moom. Euh, ak ñi nga xam daanaka moo di la gendarmerie ñoom ñu ngi taxawee ni ni mel ci hôpital de la Play euh, Faye euh, juste trente mètres fi nga xam daanaka moo di le président Ousmane Sonko mais mën na ne amaguñ keneen koo xam ne mën nañ ne daal mi bëgg a jege kër que soo xaadim boo gisee barricade yi yi def ci kër domicile Ousmane Sonko gëm naa ne pour nit ñuy jege fa rek problème lay doon nee naa la man mii sax nga xam ne journaliste laa dama war a mën def sama liggéey pour ma jàll il faut que ñu identifier ma ba pare may doog a kon gëm naa ne pour nit jàll fa rek ak euh, problème la. ok léegi pour jeexal est-ce que euh, euh, xibaar yi fii ak àtte bi ci xibaar naam wala déet. ah a sori incha allah rek dinañ ko tegtal bépp internet bi nga xam ne mi ngi ñuy bàyyi xel au niveau bi nga xam ne moo di ci Feeling Dakar TV. jërëjëf merci beaucoup Laye ndaw bu ñu teel foofu ci diwaanu ci Thion di nuyu Ngone Feuz ak moo xam ki nga xam ne moo di Ahmed bu Sénégal ñu leen di gërëm di bu baax a baax jërëjëf Euh, merci beaucoup en tout cas laay ñu ngi koy gërëm euh, di ko sant bu baax a baax moo ñu teewal li wax nag mooy Ousmane Sonko ba tey kenn tegul ko loxo mu euh, ñu bàyyi la nga wéyal soxna. ok Mor yeggale dafa mel ni sax suñu heure jot na. voilà di profité yeggale ci commentaire ci mbirum kii bi. Hmm, maa ngi woon maa ngi woon ci. presse bi ak mhm. carte presse nationale yi ndax lu ma doon wax rek moom mooy Euh, bu fekkente ni euh, organe de presse bi dañ ko reconnaître euh, comme étant organe de presse wala nax ci yan anam lañ ko war a daal te ñoom ci boo xoolee ci li nga xamante ni rek moom mooy sunu sunu constitution bi ci article onze bi ñoom ñoo la wax kani la création de organe de presse est prévue par la loi kon day mel ni amatuñu lenn loo xamante ni rek mën nañ ko critique parce que loolu nit ki ci ay luwaam la nekk euh, nax bu ñu waxee démocratie dafa bokk ci euh, liberté d'expression day firndeel démocratie te liberté d'expression boobu noonu euh, daam ñu ko xeex ba tax tey ñun ñu mën a toog tey fii nii di di yëkkati suñu kàddu par rapport ak actualité yi nga xam te ni moom mooy am ci dëkk bi mm-hmm. kon tey bu ñëwee ba moment bii nii jàpp naa ne amuñu lu ñu mën a teg lu dul rek ji ma xool nu ñu renforcer li nga xam te ni moom mooy métier mi ji ma xool nu ñu euh, defaraate mhm. voilà bu fekkee da ngay jëlaat. voilà donc euh, Mor ñu ngi lay gërëm ñu ngi ci ligne bi ak suñu doyen Demba Ramata Demba Ramata ñu ngi lay nuyu. waaye Xaadim maa ngi lay fay. directeur publication.